tummata min taraa'iqi ta'addubi topp bokk na ci yooni tegginu fi'lu ko sag def maa lépp loo xam ne nazarta xool nga ko bisti saanin ànd ak rafetlu ak bàyyi lépp loo xam ne nazarta xool nga ko bisti jaanin ànd ak juunlu juunlu mooy ñaawlu wa baaduhum lenn ci ñoom sax xii la waxee foon na loxo ñel ko ne ko man at dabaka anakan moo la yar ay li ci namm man ana kan iqtadayta roy nga iqtadayta bi ci moom xataa haddabaka ba mu sellal la may ba mu yar la nga mel ni faqaala mu ne kuntu nekkoon naa ak daxara ci jëpp jamono anzuru di xool ilaa jahli lazi jëm ci réerug ka nga xam ne jëm ci réerug ka nga xam ne dalaaluhoo réeram nga xadin jalaa feeñ na su ma akkoon danaa nekk vajtinaa bin di boroomuk moytu an walis ko xanaa fii nag intahat la jeexe la mate xaatimatul jawaabi mujjug tontu lii mu ne sax bala àggale way yi mat a mooy sam xel bu fekkee dara sikku ca ngay xool bu baax a baax nit ñi koo ci gis na muy defee ak na muy waxe ak na muy soppaxndikoo xel mu rafet mu ne dana ko rafetlu nga daal xam ne loole teggin la lu rafet la loo gis nag nit di ko waxee mbaa di ko jëfe mbaa dina soppaxndikoo te nga gis ne xel mu rafet mu ne daal moom dana lu lii dana joonlu lii dana ko finati nga xam ne loolee kon du teggiin baaxut nga daal di koy moytu mu ne sax am na kuñ daan yéem ci yaru ak rafet teggiin ñu laaj ko ne ko waaw yow sa yar bii ak sa teggiin yii foo ko jëlee ku la yar ba nga mel nii mu ne dara xanaa ànd ak sama xel ak sama teey di seetlu rek su ma gisee koo xam ne daal na mu mel ak na muy soppandikoo gis naa ne xel mu rafet mu ne bu dara sikkut dana ko rafetlu ba xam ne loole lu rafet la ma jéem koo roy ca loole su ma gisee na koo xam ne nee muy waxe mbaa nee muy jëfe mbaa nee muy soppandikoo daal menn xel mu rafet du ko rafetlu xel mu dara sikkut mu ne dana ñaawlu lii walla di xam ne loolee lu ñaaw la noonee mu ñaawee ca moom may su ma ko defee noonu dong lay ñaawe mu daal moytu loola mu ne kenn yoruma kat nii rek laa def ba mel nii mu mel yaa nii dana jublu ne an naka naka yow in lam tajit ndee mën laa am a cheikha sëriñ ba kazalika naka noonee fala aqal la amul lu yées maanaam amul lu tane min an yakkoona ci mu nekk axan di mbokk xàqan muy dëgg-dëgg mbokk aw saaxiban wala muy àndaale buy dëgg-dëggi àndaale wal axu mbokk ma alxaqu may dëgg-dëgg mbokk woo moom allësi mooy ka nga xam ne achaara junjoon na ilayhi jëm ci moom alxaayul aji wax ja ne inna axaaka alxaqa al toppal bayit ya ba mat wa anna haasihi ak naka lii ayyuhal muridoona yéen taalibe yi jumlatun mbooloo la minal adabi ci teggiin kaafiyatun bu di aju doy li man ñeel ko nga xam ne te am malaha settantal na ko saafiyatun bu di aji saafara li man ñeel ko nga xam ne istaamalaxaa jëfandikoo na ko yestadillu dana mën a tegtaloo bihaa ci moom allab yi bu aji xellu ja xalaamaa ci la nga xam ne waraa ahaa nekk na ci gannaawam min furuuxi haadal baabi ci bàngaasi bile bunt xataa kam mi la ba ba muy fu noonal adabi xeeti teggiin bay li nga xam ne moom la mujj wax moom lay tàmbalee saraa ne la dama laa bëgg a xamal ne la soo mënta am sëriñ bu matub sëriñ ci sa digganteeg sa boroom fexeel ba am mbokk ci yàlla mbaa xarit ci yàlla boo xam ne mel na na war a mel te mu ne kooka nag noonee waykat boo waxee woon na indi axaakal xàqa te ñu nett la ko léegi noonu rekk la mbokk dëgg-dëgg wala xarit dëgg-dëgg ci yàlla war mu teg ci ne la it li ma jot a andi kat lu takkoo takku ci wàlluk teggiin xëy na sax lu doy yombut waaye ku ko doyloo settantal ko mu daal di saafara samaru xol ci lu aju ci mbirum teggiin te ku yeewu ku ne mën na cee tegtaloo di yéeg ba àgg ci yemukaay ba ci wàllu teggiin wa anna min tariqi taaddubi ak naka bokk na ci yoonu teggiinu wa sabili tahaddubi ak yoonu yaru an ngay xool ilaa ma jëm ci la nga xam ne tastahsinuhu da nga ko rafetlu min xayrika ci kullu yow fa tafxalahoo te nga koy def wa ilaa ak jëm ci la nga xam ne tastaqbihu da nga ko ñaawlu fa tajtanibahu te nga koy moytu mën ngaa jàng it fa tajtanibuhu kama xiila ni ki waxee foon ne ida ajabatka ndéem yéemuloo na la xisaa lumri in jikkoy ascam fa kunhu nekkal di moom yekkun kon nekk min ci yow maa nga xam ne yoon jibu ko dana la yéemuloo ndax fa lay sa xalal majdi déet muy nekk ci tedd nga wal makrumaati ak teraanga ya xaajibun jenn aji yiir maanaam jenn aji aaye yaxjubu ko jëttana la yiir idaa ji taxaandeem bëgg nga leen dikkal waxi la waxee foon na li baadihim ñeel lenn ci ñoom ne ko man addabaka ana kan moo la yar fa qaala mu ne kuntu nekkoon naa anzuru di xool ilaa jahlil na jëm ci réer ak réer ña fa ajtani bu xoote ma koy moytu wallaahu yàlla nag al muwaffiqu mooy aji tawfiqale ja li sawaabi jëm ci jub wa ilayhi te jëm na ci moom al marji'u dellu ga wal mu aabu ak dellu ga ba tey nasaluhu dal nu ko ñaan an yuwaffiqanaa mu tawfiqal nu wa ahibatanaa ak sunuy soppe limaa jëm ci la nga xam ne yurdihi dana ko gërëmloo xànnaa ci nun wa yastaamilanaa te mu nuy jëfloo fii maa ci la nga xam ne yardaahu dana ko gërëm naa ci nun wala xawla amul benn xeetu pexe buy tee mooy wala quwata amul benn xeetu kàttan buy tax a topp illaa billahi dara muy nekk ci yàlla al ali yàlla ki aji kawe al azim ki aji màgg wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman xasbunallahu wa ni'mal wakiil fa jàll àggale saraa bi ne la bokk na ci yoon wa gën gàtt ci nga ami teggiin daal di yaru mooy nga ànd ak sam xel ndegam xel mi dara sikku ci di xool bu baax a baax nit koo gis rafetlu na muy doxe nga roy ko xam ne noonu mu rafete ci moom noonu rafete ci yow koo gis te lu aw dox doxinam te fekk na sam xel moom rafet dara sikku ci koo gis aw nam ñaaw nga moytoo def ne moom ndax noonee loolee ñaawe ci moom rek noona lay ñaawe ci yow mu ne sax am na ku ne soo gisee nit naw ay jikkoom jéema la rek mel na mu mel ndax lu baax moom ku waaxu jëm ca amul ku lay dogale naa la doo ca dem gàtt yitte rek mooy tey dem ci lu baax waaye lu baax ak teraanga moom ku waaxu jëm ca amul dara luy dox sa digganteeg moom ne la doo ca dem am na kuñ laajoon ne ko waaw yar bi nga amee ak teggi na fet yi nga amee foo ko jële ku la doon yar mu ne kenn xanaa di xool bu baax rek bu ma gisee koo xam ne xam naa ni mu mel moom ak xamadi rek moo ko ko yóbbee ma moytoo na mu mel ma gisee koo xam ne ni xam naa ne ak jëfe moo ko ko may ma jéem a roy ca moom mel na mu mel loolu daal nee na ci laa mele ni mu mel ci yar ak i mu ñaan nag yàlla mi nga xam ne moo mën a tawfiixal ak jaamam mu tawfiixale nu jub boole nu ak sunuy soppe tawfiixale nu lay tax mu gërëm nu nu sax ca loola di jëfe ngërëmam ba am ngërëmam ndax yàlla rek nee na moo am pexe mu am kàttan jaam amul pexe amul kàttan xadintaha jeex na mat na nahju qadaa'il xaaji téere bi tudd nahju qadaa'il xaaj yoonu faj ajo fi hasdi zarahi cheikhina ci góob mbayum sunu sëriñ addal xaaji kon alhamdu xeeti cant yépp lillaahi aji saxla yàlla al mu'inir raaji mi aji dimbali aji yaakaar xalal lësi ca la nga xam ne anta maye na ko min istixraajin ci ak génne chakartuhoo sant naa ko moom yàlla jàlla màgg na xalal ixraaji ca génne ga min ashaqaawati ci ak texee di wal istidraaj akuk jayu mu ne téere bi tudd naxju xadaayil xaaj foofu la yem kon maa ngi dellu di sant yàlla mi nga xam ne ku ko yaakaar du tas sa yaakaar faw mu dimbali la maa ngi koy sant ci lam ma génnee te muy loo xam ne ku ne bëgg na ci ak génn mooy texee di ñàkk texe akuk jayu nee mi ngi dollee sant yàlla ci génn gim ko génn ci lépp luy xeeti di ak lépp lu di ak jayu maanaam yàlla jay la nga jayu te yëgoone jay na la yàlla dana di jay lool ña ko soob ci ay jaamam ba ñu jayu tu masalaatu topp dolli teral wasalaamuhoo ak jàmmam wala dolli wóoloom maxan boole seen alal lëz yàlla nekk ci ka nga xam ne jamaa boole na kulal masaaya mboolem ngëneel ya sayyidinaa te mooy sunu sang alhaadi kay aji jugal ëllës ka nga xam ne xadd nafaa jariñ na muhammadin te mooy muhammad shafiihi kulli shufahaa may aji ràmm mboolem way ràmmoo ña wala kay aji tinu mboolem way tinoo ña sayyidina te mooy sunu sang almamduuxi kadi kuñ tagg fil quraani ci alquraan bil xuluqi ci jikko al azimi ji aji màgg wal ihsaani akook ak ay saxaabaam al ixwaani ña di ay mbokk dawit taxaabu bi ña di waroomuk soppante bilaa adgaanin ci lu dul ay mbañeel gannaaw sant yàlla mu dellu baamuwaat julli ci yonante bi ne yàlla na yàlla doole lee saxal teraanga ak jàmm ci sang bi nga xam ne yàllaa ko jox mboolem xeeti ngëneel yi mu boole leen mu tudd Muhammad yàlla may ko muy jariñu bay jariñ ñeneen te mooy tinu ñëpp bu ëllëgee am na tin mu mag a mag ñu koy tuddee al shafaat al kubra wax nañu ko ay yooni yoon day xeetu ràmm boo xam ne yonante bi rek la ko yàlla jagleel mooy waa pénc ma bu ñu taxawee ba ñu doon jiital yóbbu sawara it taxawaay bi moom na jeex rek ku àkk rek ci yonante yi mu joxe ngànt ba agsi ci Muhammad nag mooy ñaan yàlla mu tin jaam yi àtte leen yàlla daldi nangu am tinoom daldi àtte waa pénc ma pénc ma tas ku ne jëm fa muy jëm sang boobu nag nee muy Muhammad yàllaa ko tagg ci alquran ne ko yow de da ngaa amee jikko ju màgg màgg muy wa innaka la ala xuluqin azim yàlla na ko yàlla dool teraanga ak jàmm dolli ko mbokkam yaag saxaabaam yi nga xam ne dañoo doonoon ay mbokk te yàlla tax soppante te yàlla tax amuñu woon dara luy nuru xeetu bañante wa asalu danaa ñaan allah yàlla bihi ci darajaam suma bihim topp ci seen daraja maxfiratan njëggal tajuruni kook dana ma ñoddi li qurbihim jëm ci seenu jege wa an yasiidani ak mu dolli ma bihi ci daraja yonante bi wa bihi moo ak ci seen daraja ilman xam-xam yàqu duni bopp dana ma wommat ilaa xubbihi moo jëm ci seenu sopp maa ngi delluy ñaan yàlla nag ci daraja yonante bi ak yi gaayam yu baax ya yàlla dolli ma njéggal goo xam ne day tax ma gën di jege yonante bi di gën ci jege gaayam yooyee di ñaan yàlla it ci daraja yonante bi ak darajay gaayam yooyee mu di ma dolli rek xam-xam boo xam ne damay wommat jëme ma ci may gën a sopp yonante bi di gën a sopp gaayam yooyee wa an yekkoona ak bu nekkee an nazmu way wa wasilatan di jottalikukaay lii ñeel ma walil muridiina ak ñeel taalibe yi ilal fadilati jëm ci ngëneel wa an yakuna ak mu nekk xaawiyan di aj làq lil barakati ñeel barke wa an yakuna ak mu nekk waaqiyan di aji fekk lil mahlukati ñeel alkande wa an yakuna ak mu nekk shaafiyan di aji saafara lid daa ñeel jëpp jàngoro wa an yakuna ak mu nekk daafiha shaqaay di aji jiñ gépp texee di wa an yakuna ak mu nekk sababal wursooli di sababas àgg lanaa ñeel nu maxan mboole sunu lillaahi jëm ci yàlla wali rasooli ak jëm ci yonante ba wa an yakuna ak mu nekk jaaliban di aji ñoddee lil jannati jëme àjjana lil janna wa an yakuna ak mu nekk junnatan di pakk maanaam di kaaraange di luy fekk xan xadaabin walis mbugal wa an yakuna ak mu nekk sababas sahaadati di sababas texe wala xilmi ak xam-xam wal xamali ak jëfe wal xibaadati akuk jaamu yàlla wa an yajurana ak mu ñoddinu li xusnil xaatimati jëm ci rafetu mucc bi jaahi waalidil batooli ci darajay waajuru batool faatimata te mooy faatima al batool mooy ku dogu beddiku beru di jaamu yàlla bi faatima di des ci téere bi nag lépp da cee ñaan rek li mu yàlla defal ko ko ci téere bi mook bokki taalibe yi lim njëkk wax mooy maa ngi dollee ñaan yàlla ci daraja yonante bi ak daraja ay gaayam yu baax yooyee mu defal nu téere bi maa ngi mboolem taalibe yi muy téere bu nuy yóbbu ban àgg ji lépp luy mbaax ak ngëneel yàlla def itam téere bi mu ëmb lépp luy barke te dinu fegal lépp luy xeetu alkande doon téere boo xam ne day saafara mboolem xeeti jàngoro yi tey dàq lépp luy xeetu ñàkk texe doon téere boo xam ne dañuy àggale ci yàlla ak yonante bi doon téere boo xam ne day dox suñ digganteeg sawara womatu nag ban dugg àjjana ci gàttal daal téere bii nanu ci yàlla maye faw lépp luy xam-xam bu am njariñ ak jëf ju yiw jaamu yàlla gëm gën a taamu gën koo nangu lu daal di say jaare nag am mucc ga gën a rafet texe texe ga gën a mat ci darajey waajuru faatimata mu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu far nag julli ci yonante bi jeexale ko téere bi ne salla yal na dolli tedd nga al ilahu buur bi maalikul arbaabi kay aji moom buur ya alayhi yàlla na doole nekk ci moom wal aali ak ñoñ ña maxas sihaa bi ànd ak saxaaba ya maadaama li sax na du taxal luqin boroomuk jikkoo bil adabi ci teggiin yanaalu di am xayra matlabin ngën ji càkkutéef fi daare ni ci yaari kër ya wastaw tanat ak li dëkke na anwaaru dil jalaali leeri boroom màgg ga xulooba ahli sabri xoli ñooñ muñ wal kamaali akuk mat yàlla mi nga xam ne moom rek ay buur moo moom ñay tuddoo ay buur yàlla na dollee saxal teraanga ci yonante bi ak mbokkam yaag saabaam ya li fekk nga xam ne ku am teggiin ma ngay am lépp lu mu bëgg ci àdduna ak alaaxira ak li fekk nga xam ne ña nangoo muñ ba nekk ay jaamu yàlla yu mat sëkk leer yàlla ngay dëkkee seeni xol li fekk looloo ngi am yàlla yàlla saxal ngën ji teraanga ak ngën ji jàmm ci yonante bi ak mbokkam ya ak saxaabaam ya téere bii foofu la yem mu seetlu ne ñaari yoon tudd na al imaamu aliyu teg ca karamallahu wajha mel ne am na ñu wax karama yàlla na doole teral allahu yàlla wajhahoo kanamam ñu waxa li tax ñu jagleel ko karamallahu wajha mooy dafa mësta sujjóotal xiram benn yoon waaye daa mel ne am na ñu mel ne moom mësuñoo sujjóotal xiram di taxul ñu leen di waxal karamallahu wajha dañ ko doon yeesalaat yeesal bu mujj bii nag dafa gën a yaatu njàng mu njëkk ma te bu jëkk ñeenteelu kaset feesutoon fii mu nekk nag weesu na juróom ba dugg ci juróom benneel ku ci yoroon yenn rekk te yittewoo yu yees yi mën naa andi yam yoroon rek su fekkee màggatut ñu defal ko ko daañu ko ko mën a mottalil la mu manqué wa sallallahu taala wa sallama wa baraka ala ashrafil mursalin muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain ila yawmiddin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin dañ ci sësale bay tàmbalee kun kaati man kun kaati nag bay siiw la ne sëñ bee ko def am nañu ne maam Cerno Birahim la ko dénkoon waaye taxul nag mu am ca tegtal bu wóor mu tàmbalee ci kon nekkal kaatiman di aji nëbb li durri ñeel lor wal bu aku wàñs mooy tiis ak naqar ak ñàkk tamal kon nga am xas dan jub wa taalu te kon nga kawe aljiila maas ga yaa mutaalimu yow aji xam lu jile yàlla man di teg ci xeeti lor ak xeetu ñàkk ak tiis dee ko muñ di ko nëbb ba mel na tegu la dara ci lor tegu la dara ci tiis soo ko defee yàlla jubal la yëkkati la ba nga kawe sag maas laa tukk sir bul baril ashakwa njàmbat fekkul nekkal mu te jàll yi dan di aji góorgóorlu xataa tabul na ba jortu annaasu nit ñi ne an naka naka yow mun amun ku ñu xéewal nga na nga moytoo jàmbat sa lor del sant rek tey moytoo jàmbat lu la mën di dal ak fa mën di tollu bu mu tiis tiis ci ñàkk ak xiif ak lu mën di doon del góorgóorlu di ko muñ ba ku la gis defe ne yow daal ñàkkoo dara lépp nga am fekk na yàlla xam ne ma ngay weeye fal ilmu xam-xam laa yoxtaa dif ko jox li man koo xam ne yaxsha dana ragal tawan xiif ba li fi nekk rabbuna sunu boroom yun himu dana ko yenkiwal xabdan ab jaam sabooran bu di ab muñkat xam-xam kat yàllaa koy joxe te du ko jox ku ragal xiif jaamum yàlla boo xam ne bu nangoo muñ la ñeme xiif ñeme tiis ak lor lu ko ci yàlla teg mu nëbb ko ba ku xamul dëgg dëgg doo xam ne yàlla teg na ko loola ku mel noonu la yàlla yenkiwal xam-xam ba am njëriñ mooy la yàllay sol xam-xam ba am njëriñ daayum na nga saxoo xalaa dar si lu ci jàng xam-xam ya mu taalihan mbir mu ngay aji yër yër mooy li wax liir yaa way xab timsin ay gore as jam yetta jam jamu suuf dana cumti cumti li tawaa ngir ab xiif rekk yow miy sàkku xam-xam foo tollu na nga nekk ca njàng ma di toppaat la nga weesu woon di jéem a xam ak di jéem a àgg fa nga àggutoon waaye xiif moom bu mu mukk mukk ku xiif di tey rek muy cumti cumti fu ne mu jëm fa ndax bëgg rek lu mu def ci biiram kooka daal ku ñàkk ñàkk sol la koo xam ne soo wetuwut yàlla xañ ko xam-xam ba mu doon sàkku laa tastaxil bu soxlawoo bi risque ci wërsëg isi ngir rabbul waraa borom bindee fi mutakaffilun moo di aji warlu risque lesi wërsëgu ka nga xam ne yata'allamu dana jàng booy sàkku xam-xam bu la wërsëgu àdduna gàllankoor ndax bu yàlla xamee ne nii xam-xam bi ngay sàkku jëmmam rek a tax moo lay war nañ sa wërsëg jaam bu ne sax yàlla warulu wërsëgam wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha waaye nag kay jàng di sàkku xam-xam te yàlla tax da caa raw kooku moom na rafet njort dal xelam ci ne yàlla du ko wecc du ko seetaan waxsha na nga ragal al ilaah buur bi mutaxaafizan bu mu ngi aji sàmmonteeg li diini si ñëw diineem ji id ngir laa yenaalu du am alxil ma xam-xam xaasin aji mooy mujrimun ku di aji tooñ mu ne nag na ragal yàlla di ko bàyyi xel foo toll di sàmm diinam ji lu ñu digle nga jéem koo def lu ñu tere nga di ko sori ndax yàlla kat du may xam-xam ku koy mooy maanaam mooy yàlla lëndëm la day téye nag leeru xam-xam ba du jàll si kon kii sàggu xam-xam lay tax xam-xam bi yomb ko mooy mu ragal yàlla di sori lépp luy xeetu mooy waaye bu dee mooy rek moom mooy ga lëndëm la te xam-xam leer la mooy googu nag kon day tax xam-xam du dugg moo tax am na ci boroom xam-xam yu mag yee mag yoo xam ne buñ masaa lënt le masala dañu delluwaat tuubal seen boroom buñ ko tuubalee rek yàlla dal leen di baaxi xamal leen loolee leen mëntoon naa ina nga sorenteeg alkawaayida jigéen ña di way yëkkati ko ay ween wal xawaaniya ak jongama ya te nga beru in taddu ndem na nga jege min xaa ci ñoom laa tas la doo mucc min radam ci alkande mu ne nag na moytu jigéen gàllankoor la dox sa digganteeg xam-xam bi ngay sàkkoo sa yitte jëpp daal na ci lu baax li ngay wut muy xam ngir yàlla moytul bu baax nag jongoma bala mu laa dog gàllankoor la boo jegee jongoma rek boo tuut mu gàllankoor la yàqal la nga ñàkk la nga doon wut te it jongama ji mën na laa yóbbee bàkkaar boo xam ne da nga ñàkkee àdduna ñàkkee ca alaaxira laa tashtari bul jënde adduna adduna bi uxraa ci alaaxira yaa fataa yow cam si man baa ku jaay muuram leer juddu jaa weccee ko ay lëndëm te sa yan damu xalsat naa rëccu mu ne na moytu jaay sa alaaxira jee nga xam ne moo am solo ñu fawala ko àdduna mi dong fexeel ba daal bu la daree àdduna di jaral nga ñàkk sa alaaxira alaaxira rek am solo mooy kër ga dul jeex te fala lépp nekk fii dara nekku fi kon nag fexeel ba bul jaay leer jënd lëndëm fexeel ba bu la daray àdduna xañ alaaxira ku sàggan ba daray àdduna xañ ko alaaxiraam dana ko rëccu ji te fekk rëccu wees alhamdu xeeti cant yépp lillaahi ajiyey la ñeel yàlla ay li mu ci namm jamihul mahamidi mboolem xeeti cantaange yi wala mboolem xeeti cant yi rek al mustahsanaati yadi yu rafetlu yadi yu ñu rafetlu lillaahi ñeel na yàlla wax ya ñoom cant yooyu xalaa arbaxati maraati nekk nañ ci yeenti daraja maanaam nekk nañ ci yeenti xeet rek astanaaw tagg wa alxaasu way aji jagoo bi ci yàlla moom sanaa un tagg la jaraawaw daw na min hindi yi bàyyi ko fa moom taxalaa kawe na li zaati jëm ci jëmmam ja al muhazzamati jadi juñ màggal ay li mu ci alxaasu way aji jagoo bi ci yàlla moom sana am tagg la jara daw na min hindi yi bàyyi fa moom taxalaa kawe na lisaat yi jëm ci jëmmam ja al muhazamati jadi juñ màggal ay li mu ci namm bi nafsihi ci boppam ka xawlihi ni ki waxam ja laysa ka mislihi déddi mel ne ki yàlla shay'un dara wama ak la nga xam ne xamida sante na bi ci moom xabdu ab jaam saaxibahoo moroomum jaamam wa daalika te loolee aydan ba tey raajixun aji dellu la ilahi jëm ci yàlla taxalaa kawe na li annahoo ngir naka moom xoo moom almunaymu mooy aji xéewle ja ëllësi ja nga xam ne bi ni amatihi ci xéewalam intafaxa la jariñoo alxaamidu aji sant ja wama ak la nga xam ne xamida sante ne moom yàlla bi ci ci moom xab da xoo jaamam ba taxalaa kawe na wa dalika loolee li ko waral mooy li ànnahu ngir naka moom xoo moom alfaaxilu mooy aji jëf ja xaqiqatan ci dëgg-dëgg naxu neex ma amul moroom alxabdu jaam ba wama ak la nga xam ne xamidahoo sant ne ko ko xabduhu ab jaamam bi ci ca moom bi jalaa ili niami ci way màggi xéewal yi wa daalika loolu zaahirun aji feeñ la sëñ bi doon na firi fatiha tàmbalee ci alhamdulillah ndax bismillahi rahmaani rahim moom wax jën sukkandikoo ci yoonu al imaamu malik mooy bokkul ci fatiha ji ni ko bindee ci njëlbeeni saar yi ci des rekk noonu la mel tam ci njëlbeenuk fatiha kon mu tàmbalee ci alhamdulillah alhamdulilah nee na mooy mboolem xeeti cant yi nga xam ne yent lañu yépp rek loo ci topp mu dellu ci yàlla cant gu jëkk gi mooy ki nga xam ne yàlla ci boppam moo ko sant boppam moo seet ba xam ne yeeyoo naa sant te moom rek moo mën a cant boppam na mu yelle mu sante na boppam niki alhamdulilah ji nga xam ne moom la tàmbalee te yeneen saar itam tàmbalee cant googu ni ki alhamdulillahi lasi xalaqa samawati wal arda la saaru lan xam tàmbalee ak cant ga nga xam ne moom la sant boppam te saaru Kahf fi tàmbalee ko ak cant gam cant boppam te saaru Saba tàmbalee ko cant ga nga xam ne moom la saaru faatir tàmbalee ba tey ak bam mu teggee boppam ne man yàlla duma moroomum kenn kenn melul ni man duma moroomum kenn loolu lépp cant la gu bàyyi ko ci moom jëm ci boppam muy genn ñaareel ba mooy ab jaam sant moroomum jaamam ab jaam bu santee moroomum jaamam lam koy santee ci dëgg-dëgg yàllaa ko def moom ki ñuy sant defu ko kon nag boo toppee sant googu mu dellu rekk ci yàlla muy ñaar ñetteel bi mooy yàlla ci boppam wëlbatiku tagg ab jaamam sant ko niki ayóob bu ko yàlla tagge ca muñam ga ne ni amal abdu innahu awwaab loolu ca dëgg-dëgg yàlla moo sant ab jaamu waaye yàlla moom cant ga ndax yàlla tawfiixale jaam ba jox ko man-man ba mu def la ko yàlla tagge di ko ca sant mu ñett bi ci mujj nag mooy ab jaam yëg ne yàlla defal na ko lu rëy lii mu wëlbatiku sant yàlla loolu moom nee na lu fës la kenn ku ne boo seetloo xéewal gu am yëg ne yàllaa la ko defal nga wëlbatiku sant ko loola moom lu fës la ku ne xam na ne cant googu yàllaa ko moom wallaahu baatub allaahu nag xalamun xalam la liddaati ñeel jëmm ja almustahiqati yi aj yeyoo lil xududiyati ñeel ak njaam maanaam ñeel ñu topp ko topp jaamu wa sababu kawnihi sababu nekkam nga mustahiqan di aj yeyoo laxaa ñeel jaamu nga kawnu foo mooy nekkam nga rabban di buur war rabbu te ar rabbu almaaliku mooy aji moom ja wal mamluuku te kañu moom xaqun àq la war ko ittibaaxu maalikihi topp aji moomam ja wa huwa moom al mustaghni mooy aji doyloo bi nafsihi ci boppam xan xëyrihi walis ku dul moom wal muftaqiru tey aji aajowoo xëyruhu ku dul moom ilayhi jëm ci moom jamaxa boole na baynal uluhiyati diggante al uluhiyati nekk di yàlla war rububiyati ak nguur maanaam doon ka amal sàkk mépp mbindeef te di ko toppatoo wal aalamuuna al aalamuuna jamhu aalamin jamhu aalam la wal aalamu aalam ismu jamhin lisimi jamhu la waxu te moom maa xaddaahu mooy lépp lu bokkut yàlla taxalaa kawe na war baatub arrahman xawa moom allësi mooy ka nga xam ne laayantafihu du jëriñu fi duniyaa ci àdduna ahadun kenn illaa bi nafihi ndara ci ak jëriñam wala yusiibu te du jot dararun lor ahadan kenn illaa bi xablihi ndara ci maandoom nga wa huwa allësi laayan jiw du mucc ahadun kenn fil axirati ci alaxira minal xadaabi ci mbugal illaa bi injaahi ndara ci ak musalam min hu ca moom mbugal ga wala yaqaw te du tàbbi ahadun kenn fii ci moom illaa bi xadlihi ndare ca maandoom ga ne boo ne alhamdulillah baatub allah ci boppam mooy wane jëm yàlla ju tedd ji allah mooy jëm ju sell ja yeyoo jaamu ndax mooy jëmm ji nga xam ne moom ci boppam dafa doylu ci boppam sëkk aajowul jëm ci kenn mbaa lenn te nag lenn lu ne mbaa kenn ku ne aajowoo nga jëm si ci moom dara mënta dem rekk wan ko gannaaw ar rabbu nag mooy ki nga xam ne moo sàkk mbindeef ba noppi di ko saytu di ko toppatoo di ko doxal kon yàlla daa boole al uluhiyatu ak ar rububiyatu mooy ki nga xam ne moo yeyoo moom rekk ñu jaamu ko ndax moo sàkk lépp moom lépp te nag ku la moom ku ne war nga koo topp mu yeyoo nag ñu jaamu ko ndax li mu di jëm ju sell joo xam ne dafa li ci boppam sëkk aajowul jëm ci kenn mbaa lenn te kenn ku ne ak leen lu ne rekk aajowoo jëm si ci moom kon loolu mooy alhamdulillahi ak baatub rabbi ji ànd ak alxaalamin alxaalamin jooju ca cosaan xaala mun la woon di firi rekk mbindeef nga xam ne xaala moom lépp lu bokkute yàlla rek dugg na ci bi ko defee alxaala moon nag te daa ca jublu li xelu rekk muy nit ak jinne ak malaaka dañu ne bu dee fi taxaw foofu ci alxuraan moom lépp rekk lu bokkut ak yàlla dana ko ëmbaale li nga xam ne moom la xaalam meloon ba ñu ko jam xoogut kon yàlla mooy buurub mboolem mbindeef yi li am xel ak li amul xel la ca fés ak la ca làqu lépp rek yàllaa ko sàkk moom ko di ko doxal amu ca bokkaale loolu mooy alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim ja ca topp nag la ne arrahman mooy ki nga xam ne képp ku jariñu fii ci àdduna moo la jariñ ku fi mucc itam moo la musal ko ci xam ne nag loru nga moo maandu ci yow bañ laa dimbale ba nga loru yàlla day am ñu mu jëflanteel ci mbaaxam ak ngëneelam ñu daldi mucc te jariñu am ñu mu jëflanteel ci ak maandoom ñooña daldi loru alku loolu lépp nag ci coobareem rekk lay jëfee moo tax ñu koy ñaan muy jëfalanteeg nun ci yërmandeem ak ngëneelam te bañ nun ci ak maandu teem arrahim nee na mooy ki nga xam ni foofee ci àllaaxira ku fa mucc ci mbugal moo la musal ca mbugal ma ku ci daanu ci mbugal ak maandoo ma tax nga daanu ca mbugal ga maliki yawmi diin moo ci topp buurub bis am na ñuy jàng maliki yawmi diini aji moom bisu pay ba muy bis penc wa yawmu diin yawmu diin yawmul jësaay mooy bisu pay ba waxoo moom yàlla maalikuhu mooy aji moomam yu xaamilu dana jëfalanteeg alxibaada jaam ñu fii ci moom bil adli cig maandu wa rahmati ak yërmande fa man yaa amal ku jëf mitqaala darratin lu toll ni aw sangaleeñ xayran ci aw yiw yaraxoo mu gis ko wa man ya amal ku jëf mitqaala darratin lu toll ni aw sangaleeñ charan ci ay yaraxoo mu gis ko wala maakaana ba nekkee daalikal yow mu boobee bis laa yen faxu du jariñ fii ci moom ilal xibaadut ndare jaamu yàlla bil xamali ca jëf ja assaalih ji ajiyu lillahi ngir yàlla wax du moom rek bila kufrin ci lu ak weddi wala shirkin du caagiwul ak bokkaale talaba sàkku min fu ci moom xuloo sal xubudiyati sellu jaamu ga wa allamahoo te mu xamal ko iyaaka yow rekk naabudu la jaamu waxdaka yow rekk kat laamaha xayrika du caagiwul ànd ak kulli yow minal muddaayina ci way woote lil uluhiyati lil uluhiyati ñeel ak nguur kan nafsi ni ki bakkan wa dunya ak àdduna wa ak seytaane wal hawa ak bànneex wala maakaanat ba nekkee it haadihi lxibaadatu jile jaamu alxaalisatu gay aji sell la foo ñeel yàlla taxalaa kawe na bi haadihi kayfiyati ci ñile melo laa tuum kinu di jàppandi li ahadin ñeel kenn illaa li man dara ñeel ka nga xam ne ahaanahu dimbali na ko alayha ci moom taxalaa kawe na moom yàlla xaala wax na moom yàlla ne wa iyaaka te yow rekk kat nastahinu la ni sàkkoo dimbandikoo bu agsee ci malik yow mi diin yow mi diin nee mooy bisu pay ba yàlla nag moo bis yépp waaye bis boobee moom da cay gën ndax fii ci àdduna moom rek moo fi buur waaye am na ci saahir ñu bàyyi ñu mel ne dañuy soppandiku soppandiku nguur fii ci àdduna ci bis boobu nag moom menn moom rek mooy soppandiku moo tax foofa la nguuram di gën a fese mu ne nag foofee ci àllaaxira la yàlla jëflanteeg jaamam ñi ñenn ñi mu baaxee leen ngeeneel ak yërmande ñenn ña mu jëflanteeg ñoom cig maandu rek ñu daldi alku di sax ñu ne yow mu diini bésub fay la mooy lu waaye defoon lum tuuti tuuti ba toll ni aw sangaleeñ bu dee aw yiw daañu ko seet fay ko ko bu dee safaan ba it daañu ko seet fay ko ko ndegam nag bis boobu di bis penc jëf ju sell ngir yàllay kese moo fay am njariñ moo tax yàlla xamal jaam bi ne ko iyaaka naabudu neel yow yàlla yow képp la ni jaamu dunu jaamu keneen dun la boole keneen di jaamu niki ñeenti ñi nga xam ni dañuy noonu nit te ku ci ne bëgg soppi ku yàlla ju ñuy jaamu te mooy bakkan ak bànneex ak seytaan yi àdduna nun day dunu ci jaamu kenn ci ñoom yow rekk la ñuy jaamu bañ laa boole keneen mbaale neen loolu yàlla xamal jullit bi bëgg mu xam ko te defe noonu mu ne it bi nga xamee ne jaamu yàlla gu selle noonu kat ni doomi aadama ñàkk texe ak kàttan mënu ko lu may yàllaa ko ci dimbale moo tax yàlla xamal jaam bi ne ko neel wa iyaaka nastaayinu yàlla ci yow rek la ñuy sàkku nga dimbalinu wa ma mabna haadihi xaalati lan mooy dëggukaayu bi la mbir allati bi nga xam ne yam bax yi dana yell ay yootanaa bu dee fi sonne bu dee fi yittewoo bihaa ci moom wa yutlaba te dee fi sàkku alayha ci moom alxaw nu ndimbal la alaa yëgal waxiya moom alxidaayatu mooy gindiku ga wala maakaana ba nekkee haasa lii maxallal ijaabati di bérébub wuyu ñaan li koy ngir nekkam nga izhaaran di ak feeñal li faqri ñeel ñàkk wat darari ak lor waxad xaala te waxal na moom yàlla ne am mm-hmm. man wala ka nga xam ne yu jiibu dana wuyu al muddu tarra kañu loruloo isa daxaahu ndéem woona ko ak ba mu ne inna mas sadaqaatu naka asaka ya muy sarax ya war lil fuqaraa yi ñeel na way ñàkk ña as foofa moom ay asaka la ca jublu ca fa mu nekk waaye daa bëgg wax rek ne saraxe muy su war ak su warut suñu coobarewu yépp rek ñu doole bokk nañ ci ñi ko gën a yelloo sa ala ñaan na moom jaam bi daldi ne ihdinaa yàlla na nga nu gindi assiraata yoon wa almustaqiima way aji jub wa mas siraatu lan mooy yoon wa almustaqiimu way aji jub siraatal lazina mooy yoonu gaa ya nga xam ne anhamta xéewle nga alayhim ci ñoom bi kaw nihim ci seenu nekk tazawwadoo di yóbbuloo bi haadihi ni ami ci yile xéewal al mubaaxaati ya di ndaganal lahum ñeel leen ilal waajibi jëm ci aj war wal man doo ak lañu sopp xataa wasaloo ba ñu àgg lil jannati jëm àjjana allati ja nga xam ne waxida digéef na ko almuttaqoona way ragal ñu yàlla xayril maxduubi ñu dul ñañu mere alayhim ci ñoom wala daalliina du caagéenu it way sànkuña bi kaw nihim siw nekk tazawadoo di yóbbuloo bihaa ci xéwal yooyu dul xaraam yi jëm ci aji araam wal makruuhi ak lu ñu sib wala mu yaarifoo te xamuñu ne annaha naka xéwal yooyu fadlul ngëneel la minallahi lu tukkee ci yàlla wa rahmatun ak yërmaane bal li fi nekk jaxiloo réere nañu bi xaqiqati ci dëgg-dëgg la nga xam ne hum ñoom alayhi nekk nañ ca wa dalloo te ñu réer wa maakaanoo nekkuñu muhtadiina di way gindiku dañuy firee ne almaxduubu alayhim ña ñu mere moo di alyahuudu li annahum arafu alxaq wa jaxaduuhu yi nga xam ne dañoo xam dëgg ba noppi nangu wuñ caa aw ñooñu mooy ñu yàlla mere wala daalliina jooju nag muy du caagéenu way réer ña way sànku ña dañu wax ni mooy an nasaara yi ndax ñoom bëgg nañ lu baax nangoo sonn waaye dañoo sànku ñàkk aw ca yoon wa mu ne nag ndegam gindiku moom mooy cosaanal wépp yiw bu xasee gindiku rekk tegu nga ca yoon wa te dara jombatu la lépp lu yàlla taw fii xala rekk mën nga ca àgg moo tax nag ndegam foofu jaam bi taxaw day waxtu nangu ñaan ndax yàlla moo ne ku loru boo ma wooyee ma wuyu la te sarax moom ku loru bu yelwaanee ñu war koo sarax moo tax yàlla daal di yankiwal jaam bi foofu ne ko ñaanal nag ma gindi la teg la ci yoon wa nga xam ne moo jub xocc balay àggale ci sama ngërëm yoon woowu nag mooy yoonu ña nga xam ne man yàlla maa leen baaxe moo xam nag day ña kawe kawe di yonante di wàcc ba ci suuf ci gaa yu baax yi te ñaan nag mu musal la ci yoonu ñañu mere te mooy ñi nga xam dañoo xam dëgg ba noppi nanguwuñ caa aw ñaan it mu musal la ci yoonu ñëreer sànku nga xam ni daañu góorlu waaye dañoo jàdd yoon wa sëñ bi ne lii la yàlla yanki wala jaam bi mu wax ko bu tàmbalee ihdina siraatal mustaqim ba fatiha jeex siraatal lazina an'amta alayhim biñ ko dee firi dañuy wax ne mooy minan nabiyiina wa siddiqiina wa shuhadaayi wa saalihiin sëñ bi ne ndaxam ñooñoo sax waaye dangay wax ni képp koo xam ne la ko yàlla xéewale mooy mu dagan taxaw na ca nam ca war a taxawee ci jeexal ko ci def waajib ak mën dóot mooy sax rek ci la yàlla bëgg lépp lu ko yàlla xéewale rek mu jëmale ko ci lu koy may ngërëmul yàlla ku mel noonu rek daal nay dugg ci siraatal lazina an'amta alayhim dal nay bokk ca ñooña mu ne it ñañu mere ndax xam dëgg bañ koo topp ak ñu réer nangu nañoo sonn waaye awuñ ca yoon wa ne danga ci ciy boole ci gàttal képp koo xam ne rek la ko yàlla xéewale ci lu lew santiwu ko yàlla sàkku ci ngërëmam xanaa rek sax ci yàq ko ci lu yàlla araamal ak lu yàlla sib képp kuy doxe wow doxin rek dal nay bokk ci ñañu mere dal ci ña sànku kon li tàmbalee ihdina siratal mustaqim ba fatiha ji jeex ak ñaan la mooy sunu boroom yàlla nu teg ci yoon wu jub wa xocc way taxa agsi ci yow te ànd ak ngërëm sëñ bi ne mooy yoonu gaa ya nga xam ne ñu leen yàlla xéewale te muy lu dagan dañoo taxaw temm ci sant ci yàlla lépp lu ñu am rekk ci xéewal rafetale ko def waa ji bëgg man dóob sax ca noona ba seeni tànk taxaw ci àjjana musul nag ci yoonu gaaya nga xam ne boo leen xéewalee sa xéewal ñu wëlbatiku maye ko yàlla di ca def lu araam di ca def lu ñu sib bu ñu xam ne ngëneel la yërmaande loo leen defal ñu war caa sant wut ci ngërëm xanaa rek di ca moye ko fo mësul nu ci yoonu ñamel noonu foofu la sëriñ bi firee alfaatiha ki koy jàng waqaala aydan inna naasa naka nit ñi xismaani ñaari xaaj lañu albaru aji baax wal faajiru aji saay-saay wa amal barru daal aji baax ja fa in xadarta dem àttan nga xalaa an tafxala ci nga def misla fi alihi kem jëfam kon baax na wa illaa bu fekkee mënoo ko fatta bihu na nga ko topp mën na it baaxu na ko topp li yootiyaka ngir mu jox la bi fadlihi ci ngëneelam mbaa nga ne min fadlihi ci ngëneelam la wal faajiru aji saay-saay ja in ra ay taxoo ndéem gis nga ko fansur xoolal ilahi ci moom wansur te nga seet fii nafsika ci sa bopp wa in ra ay ta boo gisee fii nafsika ci sa bopp xay ban sikk misli xay bihi kem sikkam sa fatub tuubal min daalikal xay bi ci soosee sikk tawbatan tuub na sooxan guddi ab sellaa kon wa qaala allahu taala wa fi anfusikum ak ci seen bopp afalaa tubsiroona ndax du ngeen gis bu baax a baax ndax du ngeen seetlu bu baax a baax wa in lam tara ndem gisoo daalikal xayba joojee sikk fii ci yow fa firra kon dawal minhu ci aji saay saay joojee wala taqrab fu te bul ko jege tan ju kon nga mucc min ci moom wayen te kon mu mucc min ci yow wasalaam sëñ bi nee nit ñi ñaari xaaj lañu am na ku am na ku bon ku baax moom nee na soo mënee def la muy def ba baaxi ni moom kon loola def ko su fekkee mënoo ko nag toppal ci moom ndax nga am ci baaxam nga ki saay-saay nag moom mooy ki bon boo ko gisee da seet bu baax ba xam la ko taxa bon nga xool ba xam loolee ko taxa bon ndax yow am na ci yow wala amul ci yow soo gisee ne loolee am na ci yow nga daal di gaaw tuub tuub ku sell sell su fekkee ne nag loola amul ci yow nga sant yàlla nag te daw ku bon kookee lu yàgg-yàgg bul ko jege ba mu la jege ndax boo ko jegee mbaa mu jege la rekk mu daal lay wàll wa qaala aydan li kullin ñeel na kenn ku ne minal qalbi ci xol wal lisaani ak làmmiñ wa baqiyatil jawaarihi ak ya des ca cër ya watanun ab dëkkuwaay wa quutun akub dund fa watanul qalbi dëkkuwaayu xol ak tawxiidu mooy wéetal yàlla waqootu wati dundam ba niyatul xayri mooy yéene aw yiw maxal xawaatiri ànd ak xalaat ya al mardiyati yadiñu gërëm wa watanul lisaani dëkkuwaayu làmmiñ ak dikru mooy tudd yàlla waqootu wati ab dundam qawlul xayri moo di wax aw yiw wa watanu baqiyatil jawaarihi dëkku ya des ca cër ya alwaajibu mooy taqoo aji war wal mandoobu ak lañu sopp waqootuhaa te seenub dund almubaaxu mooy lañu daganal almutawassalu la di luñ jotlikoo bi ci moom ilayhima jëm ci ñoom ñaar muy waajib ak mandoob sëñ bi ne xol ak làmmiñ danga leen di ber kenn ku ci ne taxaw fee boo leen génnee ba noppi nag yi des ci cër yi moom itam nga taxawal leen fee ba noppi nag ne ku ne ci yooyu am nga foo war a dëkk am nga loo war di dundee bu dee xol bi fa war a dëkk mooy wéetal yàlla la war a dunde mooy yéene lu baax ak a xalaat xalaat yu baax làmmiñ fa mu war a dëkk mooy tudd yàlla ab dundam ba mu war a dunde mooy taqoo wax lu baax yi des ci cër yi nag fañ war a dëkk mooy sax ci ndigal mooy def waajib ak mandoob la yàlla digle sañees koo bañ ak la sopp waralu ko waaye ku ko def mu gërëm la yi des ci cër yi moom foofu lañu war a dëkk seen dund nag mooy di jëfandikoo loo xam ne lu lew la ngir mën a def la yàlla bëgg mooy fexe ba am lu lew te di ko jëfandikoo ci lu yàlla gërëm mooy di ko dimbandikoo ci def li yàlla santaane te moytoo am lew ba noppi nag yàq ko ci luñ araamal ba luñu sipp wa qaala ma mahma taraaka saa yoo xam ne gaar na la xajisun lot xan fi an def dara mimma ci la xam ne umirta digaleef na la ci moom aw dafxi shay'in wala jiñ dara takrahu loolu da nga tereef na la an ko fastain na nga dimbandikoo alayhima ci ñoom ñaar bit tawbati ca tuub ga an na sooxi nga di ab sellaa kon yaa xaw mi yéen sama nit istaxfiroo na ngeen sàkkoo jéggulu rabbakum seen boroom suma tuuboo topp ngeen tuub ilayhi jëm ci moom yursil kon mu boyal asamaan si midraaran mbir muy ab yolaa kon cib taw xaleykum ci yéen waaye sitkum te kon mu doole leen quwatan jëm ci seen doole jawoon amarakum digal na leen rabbukum seen boroom bil ibaadaati ci xeeti jaamu yàlla yi liyu matti akum ngir mu xéewala leen fil aaxirati ci alaaxira bil aadaati ca aada ya aada yi mooy lekk ak naan ak bànneexi yaram yi ci des niki bànneexu sëy laata ko noona du ngeen nekk min rijalillahi di bokk ci góori yàlla yi illaa baxda an ndare gannaaw bu nekkee ay ibaadaati neexitu jaamu yàlla yi mutasaawiyatan di aji yemoonte bi xalaawatil xaadaati